Touba Khayra. seen menuiserie tapisserie Touba Khayra seen jaaxle jeex na jëm ci wàllub jënd ak jaay ay meubles. ay salon ay chambre à coucher ay fauteuil ay coussin pour auto yanji ba yegg ci lool sax yamu na ca soo bëggee yee salaat wala defar sa salon dawal gaaw seeti menuiserie tapisserie Touba Khayra. Touba Khayra. am na itam Touba Xayra tissu xeetu tissu yépp la ñuy jaay ay brodé bazin voile wax fil à fil jesner bazin brodé yéen ñi bëgg a sañse fël-fëlaale ba fu ngeen romb ñépp geexsu leen daw leen gaaw seeti ñu mën ngeen ñoo fekk Kër Massar wala tournoi Serigne Assane ca Géejawaay mën ngeen ñoo woo itam ci 77 713 94 57 77 713 94 57 wala 76 400 490 72 12 76 490 72 12. waaw fay nañ la. ci loolu de. sant yàlla bu wër. tey ñaam ndaw ak Zarko doon jogante. waaw. lan ngeen préparé Zarko. waaw comme ni ñu ko daan préparé rek ñun wax na waxoon naa leen ko ci open bi su ñun athlète lañ yor xam nañ luñ koy entraîné booy yi ñoom taxu ñoo jóg boo yëpp lay jeexal. mais combat bari woon ak ñaamu dañ ko dañ ko wax ji. Zarko tapet la lépp ñoo mën ñoo ëpp doole ñoo gën a féete paax ñoo daa ko bëri ah. wan nañ ko ko trois minutes laa leen waxoon trois minutes yu weesu ko. yow yaa ñaanal Zarko. non man la man la sekk ndaanaan. yow la sekk. maay entraîneur bi maay léppam. mais ñu gis coono yi ngi ci daj. waaw mais noonu la noonu la noonu la Zarko suñu Zarko la duñ ko seetaan mukk ta si kanam ngeen di xam kan mooy Zarko. mais li mu bëree loo ci waa lii lañ ko conseillé wàccal booy bi góos la am. pour daw for la waaw góos am. pour pour daw for la. mais loolu yëpp nañ leen bàyyi communication bi mais si géew bi ku nekk xam na kuy Zarko. Zarko mais mais ñu gisee Zarko xeexul tey xeexul. non du xeex daf leen wan ni maa daa ko mbabat wan leen ni maa leen a vivacité gaaw parce que man entraînement football rek laa ko doon entraîner parce que ñaabu ndaw xam nañu góos la am daw for la moo tax ñu wàcc toog suñu ah, tànk ko dañ ko entraîné li booy bi di bëre. mais bi sax ko wàññee poids ñu bari dañoo tiit. waaw li ñuy tiit athlète la day fubal day bëre. ñëw moo tax mu gaaw man nee naa ko combat bi man nga koy bëre su ma bëggee mu gaaw mu gaaw su su ma bëggee mu yéex mu yéex 3 minutes laa la may du ko weesu 3 minutes yi fa yombul bopp bi la mbëkk boole kaag ñaa bu di ñëw su boobaa. su bañoon faar bi mooy damm parce que bopp bi moo dal ci faar bi gisuñu jël bi de bopp bi moo dal ci bi mu lépp mu duub tànk yi ànd ak moom. ginnaaw Zarko daan na ñaabu ndaw daan Diène Kairé daan Ada Fass daan Baye Mandione ginnaaw bi mu fan la jëm. waaw euh, fi mu jëm ci kattanu yàlla comme que mag ñi lay ponkal yi ci kaw comme rek. xale ah, yi duñ ko jël. la de guerre na lañ bëggat comme que mbaa ponkal yi la. xale yi ñoo ñoo ñoo ëpp caacaay bi. xale yoo ëpp caacaay. ñoo ëpp jël. xale yi. ku si ni ah waaw. waaw Bébé ñuy wax dégg ngeen Bébé moo dul lamb Zarko day liggéey de. waaw ah, day liggéey moom liggéey bi bari na ci lamb ji. Zarko day liggéey de. ay tool la fa la ko sama xarit la mais damay daan bëri. gars yi kontaan nañ la mais supporter yi kontaan nañ si Bébé Diène. Bébé Diène wala d'accord ak coach. non ma ah, Sega Zarko day liggéey même su jëlee Bébé Diène suñ ko fayee fii. lu ko ëpp da koy jël. waaw waaw. parce que Zarko dafay nekk pour lamb. non dafa nekk pour lamb. bañu benn adversaire ku ñëw mu soo ko fayee si li ko jar parce que daa bëgg a tabaxal yaayam kër bëgg a tabaxal boppam kër bëgg a tabaxal njabootam kër waaw. comme nga est-ce que Zarko na entraîné. non déedéet naka parce que daf ñuy déggal daf ñuy déggal parce que man man dama am fulla am fayda que ci fa nekk dañu am fulla am fayda Zarko su ñëwee 18 heures sax du entraîné ah. dama koy dax su ñëwee 18 heures. du entraîné day daw tout terrain du bokk ci staff bi parce que 16 heures et demi la ñuy commencé ba 19 heures et quart ñu arrêté. du ko fooyee wax dëgg yàlla du ko fooyee mooy jiitu entraînement 16 heures pile ñu ñëw ñu ànd ak ñoom ba ba ñuy tas jaajëf. coach kontaan naa maa la gën a kontaan mais li gars yi wax d' a d' accord bébé waaye sans dépense yi rek dañuy toog waxtaan suñu waxtaanee rek xool lan la ñuy trouvé si kàttanu yàlla.